ñuy delluwaat Bercy amaguma visa dew c'est demoon nañ ñëwaat mais dinañ delluwaat de ndax sénégalais yépp ñoom ñoo taxaw def seetlu ne kii di Mbathio Ndiaye ñu ngi ko doon gis muy préparé Bercy bi préparé yeeg préparé spectacle am ci sañseem ci léppam ñu dem ba Bercy ba ñibbisi gis ñu Mbathio Ndiaye sur scène lan moo waral loolu awa comme yow moom yaa may loqatil yépp indil ma ko fi <laughs> xanaa ñu waxate rek Mbathio Ndiaye <laughs> n'a pas monté sur scène. waaw d'accord mhm. loolu remarque la boo xam ne ñu bari def nañ ko mais am na ñu ci bari donc comme mënuñu ci woon am ay leeral moo tax ñu ci bari dañu jàppoon ne que dafa dafa dem ba dernier moment changement am. Mhm. Mbathio mënul woon yéeg parce que contretemps am na walla donc euh, li tax Mbathio yéegul nag dañuy ñëw tey leeralal leen ko. du mhm. contretemps. du ko changement boo xam ne dafa jóge ci côté. Euh, technique quoi technique voilà manque de temps et manque temps et donc. Euh, en tout cas waajam bi euh, dafa nekk loo nga xam ne. bi ñu ci defee ay gëstu yaatu comme ñun affaire yi bi muy waaj a dem. jéem nañu xool mbir mi fan lay. amee ak jeexital yaa ngi woon Bercy xam nga. voilà mi ngi noonu léegi nag ñu gis ko ci bi muy waaj a dem mu ngi àndoon ak état boo xam ne ñu bari yaakaaroon nañ ne bu demee dina woy parce que ci moment boobu peut-être. mu ngi bëggoon yéeg pour euh, presser li nga xam ne moom moo di singalem bu bees bi mu génne fan yee fatal foofu uh-huh. ñu gis ko itam ba mu demee mu répété ndoo ak ki nga xam ne moom moo di Youssou pour doon préparer yeeg si scène bi mais malheureusement que yéegul li ko waral mu di euh, soxna Youssou Ndour Aïda Coulibaly nee nañ moom moo bañ ne Mbathio Ndiaye du yéeg si si scène bi bon li tax ah, mu bañ nag peut-être moom am na ay raison wam mais moom accepté na ñëpp yéeg ba mu des ki nga xam ne moom moo di Mbathio loolu waral mbàccoo yéegul si seen ëppatalaw ëppatalaw loolu <laughs> info la de ah oui. lan moo ah. tax loolu dañu am problème wala euh, dañu jubóowul wala sa sais pas parce que euh, comme je connaissais Aïda peut-être euh, je pense bokkul ci staff bi wala su bokkee ci staff bi euh, peut-être c'est pas elle gère ñu yéeg ak ñu dul yéeg. bon mbàcco kese nekk fa woon. Mhm. yeneen artistes yi ñu ngi fa. mooy mhm. muy góor muy jigéen lu tax mu seppi ci mbàcco ne moom kase moo dul yéeg loolu mooy question bi. Mhm. donc peut-être. jigéen la muy jigéen. Mm-hmm. ah xaw ma da nga jàpp ne fiiraa nga def ci jotam. en tout cas daal. Aïda Coulibaly ah, nee na mbaaco du yéeg. na mën na nekk aussi fiiraange ginnaaw rumeur ndax amoon na ay jamono euh, ay rumeur amoon na fi nag. diggante mbaaco ak ba pare balaa may développer li nga xam ne moom la internet yi eh, daal di wax ndax yaa ngi naan na est-ce que bokk na ci staff bi bay war a xool ku yéeg ku dul yéeg. Mhm. Ah, bokk ci staff bi mais xew-xew borom këram la. Mhm. Ah, quoi qu'on puisse dire chaque grand homme y une grande dame. Mhm. donc nag am na droit ci li nga xam ne mbirum jëkkëram la ci staff yi lañu bokk am na droit mhm. li nga xam ne moo di mbirum jëkkër la ne jëkkëram la ne sam ne jëkkër ji kii neex na ma ci kii neexu ma ci mhm. jëlal kii seppal kii def mhm. lee loolu jigéen bu nekk am nga droit ci sa borom kër waxtaan ceek moom bu la ko sa borom kër permettre mais bu dara amul aussi non mais attends man fi may ñëw ci problème bi mooy je me dis que ne je dama ne li nga xam ne moom moo di moo waral loolu buzz bi peut-être bi nga xam ne xewaloon nañ ko fi diggante ak Mbathio Ndiaye ak kookee di Papa Youssou Ndour xëy na loolu la jàpp ci boppam ba tey ne kii daal mënuma ko supporter mënatuma ko supporter ndax li mu waxal sama borom kër wala luñ ko tuumal ci sama borom kër dafa rëy loolu tamit mën na nekk li nga xam ne moom moo di but bi tax mu ne. ñëpp nañu yéeg le but bi nga xam ne moo di ñëpp nañu yéeg ba mu des Mbathio Ndiaye lépp mën na ci nekk en tout cas mu ngi noonu Aïda Coulibaly euh, mu ngi noonu bokk na ci staff wala bokk ci staff en tout cas sénégalais nee nañ euh, boroom këram moo xewle woon am na droit épaulé boroom këram nekk ci wetam di ko conseil waaye tamit am na droit képp koo xam ne am na yaakaar ne soo jegee boroom këram daf koy yàqal ci image am wala dara mu daal di ko écarté tegee ko ne le mu mel ni coow loolu day daal di dellu si waat mm-hmm. ndax juróon na li nga xam ne moo di bu rëy rëy rëy ci réew mi mhm. ah, diggante coow loolu ñu naan am diggante relation Mbathio Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Papa Youssou Ndour ah, demoon na ba wax ji jéggi woon dayoo ba ñu dem ba ci biir mais relation la boo xamante ni euh, rumeur la yu amul woon ba fi ñuy toll ni amul woon benn preuve et surtout ki di Mbathio mosu cee nangu euh, euh, wax ci juma me rappelle bi ko Maria jëlee fii Seneweb ne ko dégg naa yaa ngi sëy da am borom kër mu ne maa ngi sama kër toog Mhm. loolu la loolu la mais le problème mhm. mooy que ni kan moo génnee information yooyu wala kan moo am fitu wax info yooyu c'est ça mhm. le problème ñii ñu ngi naan xëy na euh, ku jege Mbathio Ndiaye la euh, ñii ñu ngi naan xëy na Mbathio Ndiaye elle moo defoon buzz boobu yëf yi daal di ko mujj <laughs> mujj ëpp loxo en tout cas euh, internet yaa ngi posé wu la question ñu ne ñu ne ñu ne fa mu ñuy mujjee daal mooy que ni nee nañu Aïda Coulibaly borom këram a xewloon am na droit décider ci biir biir këram waaye i tamit am na droit décider ci li nga xam ne moom la euh, borom këram di def ak stafam bu ko ci neexee bu ko ci neexul ci bu ko borom këram permettre peut-être na <laughs> borom këram a ko nopp mhm. permettre ko loolu muy wax ci loolu moom sunu daal di def li nga xam ne yaay ngay wax noonu waaw ah, waaw waaw man nobante nañ suñu papa ak suñu yaay muy couple heureux waaw waaw nit ñi bëgg nag <laughs> wax dëgg fa yàlla su fekkee eh, lii noonu la demee sunu sunu sunu sunu première dame yi dañu dañu am pouvoir dañu am pouvoir ci seen borom kër yi surtout nag si sunu star yi euh, gis nañ yàggul dara soxna ay dara nekk ci staff waale di ko defal et c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Euh, tey tamit gis nañ euh, ñu ne ay Aïda Coulibaly peut-être dafa bokk ci staff Youssou Ndour peut di ko encadrer di ko jox ay ay ay sujet wala di ko jox li nga xam ne moom la war a defee ci ay spectacle loolu tamit mën na nekk avantage est-ce que mënul nekk aussi des tey ki nga xam ne moo di artiste bi wala kuy ànd ak sa borom kër. Mm-hmm. su week yow nga nga coincé ko ci loolu. Mm-hmm. mën na doon avantage mën na doon inconvénient. avantage oo mm-hmm. inconvénient oo. gis nga nabu mi tey boo yëkkatee sa loxo pour mbéj ko am nga ay raison yu war a mën a tax nga koy mbéj. je pense que du am nga plaisir u na bu Ngom rek danga ko war a mbéj mm-hmm. su boobaa ban ban ban dëgg ngay am wala looy joxe comme explication mm-hmm. donc Aïda bali su defee loolu am na ay raison woom mm-hmm. de de l'autre côté ku jàppale sa jëkkër peut-être pour avantage am moo tax mais mosoo gis benn première dame comme ni ñu ko gisee ci yenn woykat yi le cas de Wally Seck ay soxna ay dara muy def loo xam ne dafay bëgg a sa jëkkëram loolu amul mais bu ñuy def dañuy def le pour protéger seen image yu jëkkër mais Euh, képp ku yëg ci seen seen dafay nekk ko xam te ne ni elle est présentable wala il est présentable ba nekk ba noppi amul image bu nga xam ne peut-être. Mhm. image boobu bu yéegee dañ naan ah diw de moo yéegoon ak diw sur mhm. scène. Mhm. diw moomu fan la jaar ak lan ak la jot a def fan gisee góor ñi jigéen ñi jaxasoo bi. bari na voilà loolu man ibaadu bi moom dama koy bañ jaxasoo góoree jigéen ñi kaw scène bi. <laughs> comme comme comme Seneweb tey jii du n'importe qui fiy jël. mën nga sa image aussi dañu ciy dañu ciy veiller bu baax a baax. kii fan la jaar lan la defoon ak lan la mës a def loo xam ne créé na fi buzz man je me dis que ne peut-être ci côté boobu man Aïda Coulibaly mën na am raison à ce que mhm. mu jéem a protéger image yu Youssou Ndour ndax Mbathio defoon na fi loo xam ne aussi jarul ñu koy rappeler mais ñëpp jotoon nañ si kon tey bu ñu demee ba mu bëgg a bokk ak Youssou Ndour seen bu Aïda Coulibaly lànkee ba mu jaral ko yenn yi am na ay raison wam mën na amit mhm. leneen loo xam ne mhm. Euh, raison wam la lu bokkul ak peut-être li may expliquer mais je me que est-ce que am na ay conseillers parce que bu fekkee yow yaa choisir nga ne yaa ngi ci milieu soo bis bi surtout que nga ne da ngay woy donc war nga mën a am staff boo xam ne wala ku ku lay mhm. gérer sa communication ba doo ba doo dugg si yenn yi dem bersi war a yeeg yeegoo ñu lay ridiculiser foofu noonu ba njariñ la am et puis dañuy delluwaat ci mhm. ginnaaw di jéem a creuser gës li nga xam ne jotoon na fi am ñu ne lii ak lii moo tax yeegul di ko jiñ Youssou Ndour daf ko takkoon di ko jiñ bàccoo photo yi mu mhm. génnoon moo tax Aïda Coulibaly bëggul mu yegg si scène bi ak yeneen ak yeneen war na mën a moytuwaat moom tamit xoolaat boppam fu ñu la invité wul bul fa dem man je pense que communication boobu su amoon peut-être yooyu yëpp en tout cas man li ma ci li ma ci jot a xam mooy euh, on a essayé Seneweb d'avoir une émission avec elle. Mm. surtout bi mu defee euh, li nga xam ne moom moo di euh, fàttal foofu sa nouvelle vidéo bi mu ko defee essayé nañu ko via Papis Nia pour def émission ak moom jotaay bu yaatu. ci biir Seneweb elle a day dem beer Bercy su fekkee yaay ne équipe de Seneweb buy dem si mm-hmm. mën nañu daal di def ak moom émission foofu. Mm-hmm. et dem nañ sax ba wax ni carrément mu ngi préparer ay mbiru graw ngir euh, mën ko hmm. amal ak Youssou Ndour ci spectacle bi hmm. donc liñ ci xam de source sûre mooy y préparation d'elle ak duo hmm. amoon na préparation boo xamante ni moom mu ko doon def ngir war ko def foofu ca Bercy ba demu fa woon ndax dafa war a seetaan wala demu fa woon ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne ay fans lañ mais dafa demoon pour waroon def spectacle ak kii di Youssou Ndour temps bi mayuñu ko peut li ñu ne Aïda Coulibaly moo ne bu mu yéeg peut a a carrément en man damay ñëw ci li nga xam ne moom la Eva wax parce que je me dis que ne Mbaye Thiaw elle mature du du yaakaaruma ne dina mën a teg tànkam foo xam ne invité wuñu ko mm-hmm. invitation moom ye mën naa wax ne am na mm-hmm. ba noppi nax euh, Mbaye Thiaw yebul staffam wala Mbaye Thiaw yebul ay fansam wala Mbaye bu quoi qu'on puisse ah am na am na li nga xam ne nag jigéen bu ne am nga ko muy sa dignité mm-hmm. bay annoncé biir si te invité ko invitation amoon na ndax boo ma waxee loolu euh, certitude waaye bersi bi nga xam ne moom lañ defoon fii ci Ndakaaru Mbathio bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo joué première partie bi mhm. balaa Youssou Ndour di yéeg mhm. donc su invitation amul woon du doon du ñëw joué li nga xam ne donc lan moo fi xew ci diggante bi on sait pas on sait pas moo tax la mhm. dañuy posé wu la question lan lan lan la en tout cas Bercy Dakar bi nga gis ngeen sama interview ak moom ci Bercy Dakar bi nga xamee ne nag Mbathio ñëwoon na fa ci lañ defoon fekk une semaine la son boobu di fattal foofu génn ñu def interview mu daal di ci def ay révélation yu mucc ay ba annoncé Bercy bi ne ne ñëpp pare moom pare na waa ay nitam pare nañ te ñu ngi waajal lu rëy ci seen boobu mm-hmm. kon maanaam amoon na invitation wala itamit boole woon nañ ko ci ñi nga xam ne nag ñooy yëg sur scène mm-hmm. wax nga nag benn wax boo xam ne mën naa ci d'accord yow Eva ndax yaa ngi naan peut-être antécédent yi nga xam ne amoon na ko quoi composer parce que Zeyna daf la laaj question bu am solo est-ce que suñu euh, célébrité yi nga xam ne nag tout le temps dañuy gis seen i jabar yi ñooy ñoo leen di nekk seen ginnaaw di leen jàppale loolu c'est pas un problème Zeyna mm-hmm. mais je me dis ne nit boo ko bëggee bu góor boo ko bëggee bu jubóowul ak ñeneen ñi de doo yëg. doo yëg doo dugg mais ak nu baax na lu baax la c'est une très chose lu baax la parce que nit ki boo ko bëggee yaay sàmm image am. Aïdara gis mhm. euh, Youssou Ndour ni mu def Aïda Coulibaly. Mhm. c'est une très bonne chose. da ngay gis euh, problème bi mooy. Mhm. bis bu ñu wee ak sa staff. coow li day am. bis bu première daaw mën a tey kaay ma wax la président Macky Sall boo xuloo Marème doo dem ci moom de ma ñëw <laughs> euh, coow mën na am première dame di dem ci ci ci musée coow mën na am <laughs> mën na am divorce am coow mën na am divorce bañ am mhm. su ma nee divorce maanaam staff ak ki nga xam ne moom moo di soxna si mhm. xam nga lu tax mhm. coow mën na am ki nga xam ne moom moo di euh, lit vocal bi daal di leen woo mhm. euh, daal di xoo xool ñu mu gën a rafete ñu waxtaan mhm. ñu daal di waat ñu trouver un terrain d'entente daal di àndaat liggéey non gis naa ko fi man gis naa fi célébrité gis naa fi gis naa fi célébrité gis naa fi première daam bu mucc ay boo xam ne mu ngi ci ginnaaw euh, góor goo xam ne jamono ji ñëpp koy bàyyi xel waaye itam ñëpp a koy jàppale amoon na benn problème bu ndaw ci staff ki nga xam ne moom moo di jëkkëram jooje amee terewul bi leen jëkkër ji wooyee ñu waxtaan xam na ne kooku waxtaan nañ ko ba juboo xam na ne kooku it su jëkkër ji munul dem bàyyi ko mhm. moom it munul dem ah, bàyyi jëkkër ji juboo nañu àndaat liggéey la woon ci liggéey la ñu jàppante woon te tey la ñu gën a neexoo tey la ñu gën a ànd jàppante du ñàkk ci liggéey parce que tamit bu ñëpp booloo di liggéey mu rafet foog mu metti d'accord ñëpp mën nañu bañ a bokk xalaat bi mhm. ñëpp mën nañu bañ a bokk xel bi boo mhm. bëggee mu rafet mais ñëpp dañuy mu rafet ku ci nekk wala ay rëkk-rëkk yu ndaw mën ta ñàkk ci liggéey mais nag buñ ci paree am na ay kilifa yoo xam ne loolu moo leen fi tax a toog loolu moo tax ñuy toog ñoom ñoo ci daal di jaaraat mu rafet li ñu wax mm-hmm. li Eva wax àndat ci mm-hmm. nit ki booy ànd ak moom da ngay sàmm image am mm-hmm. xool koo xam ne war buñ ko tuddee est-ce war nañ ko tudd teg ci sa borom kër wala est-ce que buñ ko tuddee sa borom kër war na ci taxaw ci wetam wala war na toog c'est très important suñuy célébrité seen jabar yi du dañ ko rafetlu xamuñu nag ba xam mm-hmm. divorce mbaaco bi coow lu ci jug yëpp révélation li ci jug yëpp moom moo tax Aïda Coulibaly ne ko bul yéeg mm-hmm. xamuñu ba xam euh, temps bi moo moo matuloon parce que mm-hmm. tamit quoi qu'on puisse dire artistes yi woon te tamit <laughs> est-ce que bi permettre na ñëpp ñëpp ñëpp daal di yéeg def spectacle est-ce que li ñuy waxal Aïda Coulibaly du du un simple rumeur mais ku may euh, artistes yooyu yëpp ñu yéeg benn nit boo xam ne prestation matul cinq minutes d'accord dañuy continuer ci Youssou Ndour ba tey euh, ci euh, beneen poñ bi nga xam ne moo amaat tay moom suñu papa Youssou Ndour tool yi topp na ko. Mhm. xëy na peut-être succès berce bi la. on mhm. comprendre waaye ba tey la sortie de Queen Biz bi nga xam ne def na